ma tappaat oui ma yow laa wax bu ma tappaat bu ma tappaat que ce soit la première dañoo foog nga ma tapp bul ma tappaat non bul ma non non bu ma tappaat voilà patron négal bi nga may tapp bu ma tappaat su ma yëg seen néew bu ma tappaat ok ok repose maître Kabo bu ma tapp bu ma tapp ça va toog jeex madame gënal soor yow ci biti garde na génn impoli goos respecté leen seen papa yi moo tax kilifa gu tol nii ah di dugg doo sa morom yëpp jóg nga toog comment ah eh, eh, eh, yow silence fii laa leen fekk ngeen toog nga bal toog leen ma tàppati da nga ko xoolal seen tàppate sama nekku c'est ton assistance bu ma tàppati fan la la tàpp booy jégalu nee na la mi lay jégal loo bëgg léegi lu tax mooy di xama sa wow tax mu may tàpp pourquoi mooy tàpp. bu ma ngay tàppee lu tax ngay tàppee ah jeex na fan la la tàpp. tàpp waroo ko tàpp nag jeex na on commence. sa yoon nekku ci je suis fatigué fu mu la tàpp tàpp bu ko tàppati affaire numéro 1 Mankeur Diadji Mankeur Diadji à la barre c'est le gars du minute àll là l'acheteur <laughs> de d'arachide là jënd gerte baykat yi comme ça nii après jaay affaire xaw ma bourgeois la ñuy jaay xaw ma te yoruñu dara dara yoruñu ko tous enlèvement sévère la hein na veer dañ sa casque téléphone boobu noonu na dañ fii sa kër papa du sa kër yaay seen fii tribunal la booy jaay la petite bourgeois nga jaay ko seen kër wala nga jaay ko ñu la faale ñun suñu yoon nekkul ci yow est-ce que c'est ça eh yéen ñooñu noppi leen ah jërëjëf yow yaay monsieur Mankar Diadji Guèye oui fils de Ablaye Guèye era Fambo Guèye ah mhm. yaa juddu 1979 à Waalo non dañu jum ci kii bi de juddu ma 79 kan nga juddu yaa xam dafa ko juddu sax l'an 2013 jërëjëf yow xam nga li nga def xam nga li la fi indi ah. maa ngi lay déglu waxal ma xam loolu. man xam naa ne yaa ngi may déglu. waaw d'accord li la fi indi du xam nga ko baax baax. garde affaire aaren eh. ji ak eh. tigga ji. aaren ak tigga ji. man tigge. tigga tigge ban. gerte da nga wal gerte gi. aaren ji laa gerte gi kenn wala ko ko. tigga ji. may na. amee noonu la paysan yow. vous croyez que da nekk ci àdduna bi rek di naxaatee comme ça nii dans la vie on verra. jërëjëf. eh sëñ bi eh sëñ bi yow xal boo xuloo woon ba fële doo ko indi fii da nga ñàkk a fayda ba indi ko fi rek eh sëñ bi eh eh petit kii sa morom bàyyi la tu as compris voilà. sëñ bi xam nga waajo waajooju ci xam naa ko bu baax sax fan ngeen xamante kii moo daan jën suñu gerte yi ci naka ngeen xamante voilà monsieur le président nii la demee xam nga ñun dañoo nekk si dëkk ba di bay waaw yaa ngi dégg waaw bu ñuy bañee ba ba ba noor gi jot. waaw moom mii da daan ñëw di ko jën. waaw léegi bu bu bu ko jëndee. daf ñu daan jox ay bon. waaw bon yooyu bu bu. bu eh, ñu eh, pardon ma ma monsieur yow looy kañal ni lan ngay de lan ngay dee. da ngay jàng sa cër lépp continue yow eh eh yow waxal sa wax te bàyyi kii. yaa ngi dégg maa ngi dégg bu ñu bàyyee ba noor gi jot. waaw waaw. mu mu ñëw jën ko. waaw jox ñu bon. waaw bon yooyu bu ko defee ñu fayeeku. waaw yaa ngi dégg. waaw waaye fii euh, ñetti at yi weesu. waaw ñetti at yi weesu. waaw mu jox ñu bon yoo xamante ne seefoo. c'est faux waaw mooy bon c'est faux waaw bon c'est faux maanaam fayeeku leen fayeeku wu ñaata ngeen ko jox ci toni gerte bari na ñaata ton la wóor na ñaata ton la yow yaa ñeme yàlla déglu déglu déglu yow la ki t'a pompé di nga man rek li matériel ñaata tonne gerte. góor waaw loolu laa lay expliqué. laa déglu man li matériel ne si tonne gerte mat na 10 tonnes gerte. waaw yaa ngi dégg. waaw te na ko ak ñi koo xamante ne ñu ngi sa dëkk ba waaw ndax def na ko waa Sambe waaw def ko waa laa ñaar waaw def ko waa saaye pëj ba too xasoon waaw ñoom ñëpp tiryande na leen doy na xaw na leen a rey parce que lim ñu yoreel fi mu ne nii te nekk na ay million yi millions yoo xamante ne jërëjëf wóor na see la eh, góor gi eh comme xaw na leen a mooy moytul mu doggali la ci fii tribunal bi noppil da lay bi eh, dégg nga li la waxal dama ba nga yëkkat sa loxo ndeyjoor ay nga wax mbir mi nan la demee te nga yem benn place tu as compris monsieur le président oui maa ngi yëkkati sama loxo ndeyjoor waaw di wax ni li ma fi wax lépp oui dëgg la mbir mi nan la demee waa ji waa jooju ku mën a fen a ngi nii monsieur le commissaire man maa koy faj mais yow boo ma laalee dama lay. Massa Mansour dëkk ci dëkk yi doo ma gis. mais Mansour yow eh mais yow kii morom la. mais monsieur le président. eh laaj ma la laaw. eh madame kii sa morom ba nga comment faire la. et puis tu insistes devant devant la justice. tu vas avoir des conséquences. mën a fen insulté. tu vas avoir des conséquences. insulté. continue. monsieur le président li ma la mën a wax mooy ñii man dama leen doon dimbali yaa ngi comprendre dama ñëw fekk leen ñu bay ba seen caayi ñax amuñu ku jënd seen gerte gouvernement bi rejeté leen ku ne régetté leen ma ñëw di jënd seen gerte maa ngi leen fekk ci kilo deux cent xaw ma deux cent cinquante ñëw di jënd gerte bi ak kilo trois cent francs yaa ngi comprendre yaa ngi comprendre Eh, eh, man ngeen noppi. silence. waxoo teg monsieur le président. continuez pendant des années. waaw lu ëpp dix ans. waaw ñii chaque année bu ñu récolté ba pare maay jënd seen gerte ba mu jeex tàkk te musuma leen ameel un franc. yaa ngi may dégg bu baax liñ naan kay purux du gërëm ñamu daaw. moom mii mooy purux gi yow yaay. purux eh, gi góor gi góor gi góor gi. du dafay yow noppil dama excusé wu. dama monsieur le président. Mhm. ren ñoom bay nañ ba pare ba récolté ma ñëw ñu calculer lépp lu ma leen war a jox ma jël gerte gi dem stocké ko fu ma ko stocké woon nag euh, mooy gunóor yooyu xaw ma comment on les appelle voilà ay max ay max ñëw lekk gerte gi ba mu. ma yow eh eh, eh booy. Eh, eh. yow booy wuy ma eh gis nga man bu fekkee nag ma jaawale xale du ma xale yow ay tonu gerte ay max man nañ koo lekk ba mu jeex eh, eh, eh, madam eh eh yéen laay wala mënu leen ko que du xare ay max man nañu lekk ay toni gerte président dama lay laaj oui ou non mais max yi ñoo ko lekk ah, max yee lekk max gerte gi ba mu jeex continue mm-hmm. bi ma ñëwee fekk ñu lekk lépp ma ñëw nag ni leen bon euh, situation dafa am parce que man gerte gi fi moo ko soge woon damaa ñëw fekk max yi lekk ko ba mu jeex yaa ngi comprendre léegi ñoom ñu ni ma mënuñu dégg loolu kut ko kut dama leen di fay seen xaalis ma ni leen nag seen xaalis yoraguma ko su ngeen bëggee ngeen xaar su ngeen bëggul ngeen may ma temps ma poursuivre max yooyu ñu fay ma ma fay leen yow góor gi dafa baax. mais yow eh, góor gi mënoo ñu may. jël góor bi laa wax. Eh, eh, xoolal xaw ma xaw ma bon bon yow noppi rek. après yow kay bindal ma écrit ay max yow comme ay max ñoo lekk sa gerte. kon defe naa max yi ñoo lekk sa xaalis. après dina leer. da nga réew réew bu toll ni nga ñëw ba tribunal di jox ay max ñoo lekk ay tonu gerte. tu vas voir yow de quelle boisson sauf. yow max yi bu mu doon lekkee lekk na la bu yàgg. monsieur le président eh, sa baaraam bi ngay joxoon ñoom jëmale ko fële na arrêté. xëy na xamoo ma mais kilifa laa ci dëkk bi. bu mu gàcce yu bëri maa koy nga. gis nga menteur gis nga menteur menteur neex naa xam kii depuis bi mu commencé wax ba léegi ñaari tuñam yi laalante ay yaa ñeme yàlla. barke Fapes waxul lu am. wax da ngay wax ak laaj dama la laajatul. wax mais Diop di gis nga waa ji maxe ji kon ci la parole ak seeni max. max day yëyee day yëyee. moom max moom max. président. Mhm. maa ngi lay nuyu. ngi lay fay. je vous salue monsieur procureur. sama naataango bi maître Diouf je président. sama client bi di manqueur bi bi mais li wax c'est tout à fait normal. parce que lu tax. Mhm. mais koo daan dimbale at bu jot di jënd ay gerteem di jënd léppam mais monsieur président jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam. tey day neex. soo mu naqari monsieur président nee na trois ans mi ngi jënd seeni gerte di leen fay normal dix ton la jënd rek. objection monsieur le président. objection dégagé. je parle laisse-moi parler toi. eh eh waxuloo ak yow man lay waxal kon nii. dix tonnes lañ jënd ren jox leen ay bon mais nag max yi ay jaam yàlla jaam yàlla la ñu nekk moo tax ñu dem lekk gerte gi ba mu set wit yow jaamu yàlla nga silence yàlla laa jaamu yàlla nga dama ne ndax jaamu yàlla nga ñun ñëpp ay jaamu yàlla la nga noppi yàlla parole paxee goo monsieur le président doo waxaat merci monsieur le président ah. merci merci monsieur le procureur euh, monsieur le président. damaa kontaan ci yow. Euh, yow yow nga may neexal noonu di kontaan xam nga lu ma bëgg. Hmm. la prochaine fois soo ñëw nga jënd peñe bu ndaw di peñe sa sikkim bi. d' accord d' merci on continue. merci merci. xam nga lu ma kontaan ci yow. waaw. xam ne waa ji li muy wax waxu. waxu ni dof la. monsieur le président. Mhm. kii sax daa tëj lu boppam. Mhm. ndax dañuy max. max bi àddinay baax mhm. max bant lay topp waaw waaw fàtte ni gerte moom bokkul ci yooyu bi àddinay baax mhm. max dañ ko daan fekk ci ay sàkket wala ci mbaar mu ñu mbaar ci pénc ma li ñuy wax bant yooyu ñuy wax jën max yi jàpp ko ba ni max yi lekk na ko ba mu génnee daanu objection de président objection de président ne ko def xam nga fi tax ma fekk may reetaan yàq nga sama reetaan pour rien tout waxoo waxoo waxoo. amoon noonu nga. waxoo. continue président. waaju néeg gii. ku ñime yàlla. waajoo xam ni. moo ëpp fit ci àdduna bi. ndax lan. Eh, président ma tooñ waay. sama ma yar xanaa. waaw. <laughs> te pecc ba ay jégg ay jégg. ay jégg doo def sa liggéey te nga bàyyi li nga def. sadaqallaahu l-aziim continue. sax waa ji nga xam ni moo gën a ñemee yàlla ci àdduna waa ji nga xam ni moo gën a ñemee àq ci àdduna kii fekk baykat coono bi muy am naaju tàng wi muy taw mu nekk ca tool ya mu naaj mu nekk ca tool ya yaakaar gerteem gi mu ji. Mm-hmm. ëllëg mu góob ko. yaakaar ne bu ci jaayee dina ci am dund. li ci def mu def ko ca sàkk ma. Mm-hmm. nga ñëw. ne dama koy jënd dama lay bindal bon bu ma jaayee jox la ana booya mu nekk këyit këyit mën naa joxe dépasse këyit nit mën na cee lekk mhm. këyit bu nu bind nangam rek nga teg ñetti atu yàlla mhm. gisoo ko indiwul la eh, eh, eh, yow boobu moytu dina yow mais kii ma nga yem wala ma yàq yow yaay ngi dégg li may def sa xam na la rey xool ci réew mi nga xam atu yàlla. waaw gisoo ko déggoo ko. waaw xamul ndax lekk nga. Mhm. xamul ndax naan nga. Mhm. moom mu tëdd ci ndakaaru mhm. di lekk lekk gu neex. di tëdd ci lal yu neex. ay jongamaam wër ko. jërëjëf yow addis bu jeexee luñ ciy def. salaamaaleykum si waaw waaw wax Mballa Khara Zolo Karim mën ngaa toog. ubbi la voile rek nga bëgg a taw suñu kaw ah. day mel ni taalibkat ñi suñu kaw. <laughs> waaye wax dëgg da nga koy tuutal waaye wax dëgg rek mu bàyyi la rek nga. ngay patatate di dem nii. ah monsieur le procureur waa ji. merci monsieur le président. yàlla la parole eh. noppil maître Kabo maa ngi lay nuyu. fay nañ la. maître Diop aussi maa ngi lay nuyu. mais monsieur le président. oui. dama yaakaar ni Mankeur mi taxaw. dafa yeb askan wi. ba réew. Hmm? première bi may njëkk a ci manqueur mooy que ni kilifa yu toll nii toog fii lu toll ni monsieur président suñu kilifa nga taxaw di waxal nit ba koy annoncé benn baat boo xamante ne nii baat bu impoli la moom naan ko da nga di ci jaar di ko wax lu mu la neex mel ni yow ci marché nga nekk. merci gars. eh, eh, eh. Ah, man noppi ah. man maay wax dama bëgg nga noppi yow ku ku yow yow respecté kenn mais nag boo yoree sa réewande ci mbedd mi boo ñëwee fii di nga xam ni mbaxana benn la fi te kenn koy sol muy monsieur président muy toog man que yow ku la jàpp jàpp trian ku la bàyyi bàyyi trian baax sax man que ñi nga xamante ni dañoo nekk ca àll bay bay seen bay ñi nekk ca àll ba nga xamante ni nii seen dugub jooju lañu yaakaar ñi nekk ca àll boobu nga xamante ni seen mbay moom la ñu yaakaar pour dundal ci seen njaboot ci la ñu yaakaar ngir dimbal ci seen i njaboot ak képp ku leen yaakaar nga tas seen yaakaar nan nga tase seen. yaakaar est tas yaakaar gaaw. waaw muy passé waaw continue ñëw jënd seen dugub jënd seen gerte jënd seen lépp ñu yaakaar ni da leen di jox xaalis nga jox leen bon yoo xamante ni. kenn mënul xam ndax bon la wala du bon ay kayitu kase nga leen jox ba pare nga réer leen pendant trois ans ñu la gis monsieur le président mhm. kii yaakaar naa ni taskatu yaakaar tëgg la beneen bi stop yéen ñii laay waxal yéen baykat yi lu ñu leen def yéen a ko nangu pour ñu def leen ko bi nga demee ba sa gerte ñor wala sa dugub ñor nga war ko jaay war nga ko mën a yóbbu ca sag yooyu ñu jaayal la boo ko fa yóbboo nga jaay ko yaakaar naa ni doo ci am mbetteel doo ci am dara hmm. mais nga fekk koo xamante ni nii ah li muy liggéey kenn xamul ban façon liggéey la trian la sàcc la wuyu la boo xamante dafa laqatu trompeur la nga jël sa alal jox ko ëllëg mu trompé nga taw fii di wax merci la prochaine fois yéen yi nekk ci àll ba di bay ak mbay ni mu méttee xëy suba ba ngoon naaj bi di takk sa kaw nga ñëw boo demee ba sa dugub ñor wala sa gerte ñor war nga ko yóbbu sa seko yooyu ñu jaayal la ko nga am ci dara loo xamante ne doo ci am mbetteel monsieur le président mhm. mhm. kii taxaw banqueur mi mhm. dina am loo xamante ni mosoo ko woon xam tey du bii lañ ko fi mos a indi je pense que ni jaaroon na fi ba mu fi jaaree mi ngi fi jaaroon ci cas bu mel nii boo boog léegi am na 6 ans dama jëloon conseil d' accord monsieur le président garde maa ngi koy jox kayit bi pour mu jox la ko. merci am na yeneen i plainte yoo xamante ni fekk nañ ko ci tribunal bi. merci jërëjëf garde merci beaucoup. d'accord c'est bon. merci monsieur le procureur. jërëjëf defe naa ni li ñu wax nii moom c'est très clair et net et précis amul lu ñu cay maas. Euh, balaa may ñëw ci Mankeur avec de margu yàlla nga réew di jàkkaarloog man ci insulte devant moi on verra euh, yow góor gi yéen xam nga leen lan moo tax ma jéppi leen. yéen da di yeew fajar taw bi ànd ak yéen mu taw seen kaw ba naaj bi tàng wow seen kaw ngeen am seen gerte war a jël xaalis bi def ko seen poos des personnes politiciens ñëw ni leen bu leen ko jaay gouvernement bu fi mën a ne parce que li mu leen koy jënde baaxul. torox ngeen de. torox nañu parce que vous avez politisé vos poches. Hmm. ki leen di wax bu leen ko jaay parce que li mu leen prix mu leen di fay baaxul kooku du moom leen jox dépense yaa ngi ni sa kër kër ngeen a lekk yàgg na mi ngi nii. wóor na yàlla ki la waxoon bu ko jaay waase moo la jox dépense bu gouvernement bi ne deux cent cinquante ñu ñëw ñu leen trois cent ñu leen wax leen fay ah ngeen nekk ci politique bi politique politique politique politique ba kañ dëkk bi dafa am door bu ñu war a xool door bu ñu comment bu ma ma wiiri de bu tax ma wiiri de boo leen amee gerte comme ni ko procureur waxee seko yaa ngi fi c'est pour ay gerte ak ay dugub ak yooyu am na ko fa ne moo leen di fay seen xaar directement ngeen bëgg lu yomb dëgg la bëgg lu yomb ak fëqale fëqale xam ngeen fëqale fëqale mooy lekk di xool leneen dëgg la dëgg la léegi am sa koppar kenn fay la dëgg la ñaata nga paas ñëw fii ñaata nga woo waaji téléphone loolu lépp boo calculé nga bañoon ko jaay 300 moo gën dëgg la wasalaam pare naa ci yow yow monsieur li ma leer mooy sa baay baykat la woon yow lu ma wóor ba wóor. mooy ton père paysan. ni mu xamee circuit bi nii. ni mu xamee presque kii bi nii. ah tu crois que les paysans être paysan ça va dépayser sa papa baykat la woon je le connais très bien bàyyi na suuf waxalu ko yëpp nga nekk mag ki lekkoon nga dem liggéey nga topp baykat yi di leen tromper nii. des millions yi nga jël nga yaakaar nan la yow ban coopérative ngay liggéeyee nga ne leen dama koy yóbbu ci chinois yi ana chinois ban coopérative ngay liggéey ma. man dama am ay partenaires yu nekk à l'étranger. ñu ne fan. à l'étranger. ban étranger ban dëkk la. Eh, eh, oh. bul wax partenaire yi mun naan partenaire yi boo leen joxee sa gerte dan lay fay léegi liggéey dañ koy da ngay liggéey yi nga bay yow mos nga bay un fils de paysan mosoo dem tool moo tax nga yaakaar ne paysan type nga lay tromper comme ça il va payer l'argent da fay koppar bi da koy fay da <laughs> ngay fay dama lay tëj fii soo indiwul xaalis mu dem jëli sa papa ak sa yaay ma tëj leen ci prison bi bu ko defee seen famille niil boo leen fay ma jëli sa tànta léegi max yi nag max yi ñoom dañuy dem voilà ci ma da nga ma fàttali sax yow du ma la tëj ci kaso yu baax yi xam fu ma lay tëj comme max yi dañuy lekk gerte te gerte moom gerte la rek te am nga ay am nga yàpp dama lay tëj ci max yi ñu lekk la ba xam di nga gaaw a jeex su ma la tëjee 3 ans defe naa bu ci max yi fanaanee 3 ans tu vas nga nekk squelette ñu yóbbu la ci école di la jàng observation notre corps la science élevée sortez la tête le tronc et les quatre membres boostez nerf. Ah, aja soor soor na leen ko yokkal cinq ans. Eh, yow xamoo nu ko yokkal dama dina la jox aja. da ngay xeex da ngay xeex. góor gi eh, góor gi. Eh, yow yow góor gi xam naa la tàppel nga xeexoo fee ñëw fii di xeex dama toog si naa am na dem yow na dem. Tu vas passer tes années avec les maf. yi da nga mu naan ay partenaire lan partenaire yaa ñàkk fay rek xool mu yuuxu góor bu yuuxu allez. eh garde. na dem ci maison des bu mu dem ci nit ñi. vous la sortez la séance est levée allez centrez. ci xaayu bulle ku ñam lanke